asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu bokki jullit yi bokki taalibe yi njabootug lislaam taalibe Cheikhuna Ahmadul Xadim yi toogaat nañ ci jataayub barkeelu di jataayub séentu ngëneel waaye di jataayub boroom ngërëmul yàlla muy jataay ban muy jataay bii nga xam ne ci la ñuy waajal dëgmal bisub jàmbaari lislaam ja nga xam ne liggéeyal na lislaam ba am ngërëmul lislaam liggéeyal yàlla ba am ngërëmul yàlla liggéeyal Seexuna Ahmadul Xadim ba am ngërëmul Sëriñ Tuubaa liggéeyal doomu adama yi ba làq seen ngërëm kookee moo di Cheikh Mahamadul Fadal Mbacké moom Sëriñ Tuubaa Xaadimu Rasuul bisam bii nga xam ne ci la yàlla rañaane woon Moustapha sallallahu alayhi wa sallam jox ko sërite bi nga xam ne képp ku ci tënku ñu lay wooye ab jullit ku ko bàyyi ñu tudde neneen muy julli yu juróom kooku la bisam dëgg malaat moo tax ci njiitul sëriñ Abo Baraka xalifatu Cheikh Mahamadul Fadal mu ànd ak ay rakkam sëriñ Basiiru Cheikh Abdoul Fatah nekk ni toog dend ak Cheikh Mahamadou Mourtada ak seen rakk ñu delluwaat nag na ko seen way juróom baaxoo defee duñ def dara ca teguñu ko ci ndigalu sëriñ Touba. seeti Cheikh Mahamadul Muntaxaa seen mag di seen sëriñ ba mu jox leen ndigal li yeesalaat bis bi ñu fas ko yéenee woote mbokk yi bis bi nga xam ne ci la njàqare yëpp di dañee. borom xar kanam ba nga xam ne foo waay masaa tiite boo jàkkaarloog moom soxol sedd guyi kooku bisam moo dëg malaat alhamdulilahi rabil alamin bi Sénégal ubbi ko waaye ubbi ko nag ci weer wii nga xam ne mooy weer rajab ci bisub ki nga xamante ne bii moo dëg maloon nu tëj réew mi tey ji bisam dëg malaat nu tëj réew mépp di Cheikh Mahamadoul Fadal Mbacké yal nañ ko yàlla fayal ci seen ndigal njiitul sëriñ Cheikh moom sëriñ Abdoul Karim ak ki njiitul sëriñ Baye Ndam Fall mi xam ne moo jiite en fait Cheikh Mahamadoul Fadal ñu àndandoo di woo seen bokki bopp yi ci bis bi nga xamante ne bi baaxoon nañ ko def fii ci kër Cheikh Modou bu ñu nee gannaaw suba la màggalu Kazu Rajab ren nag mu war a tolloog euh, le 26 février fii ci kër Cheikh Modou Fadal ci 21 incha allah lay tàmbali ren nag ñu ngi ko tuddee ku mag ci kër ku mag ci yoonu murit ku mag ci kër Cheikh Modou Fadal muy Serigne Issa Dieng sëriñ Issa Dieng borom Dieng ak Lagane kenn ko ne xam na ne demee woon ci kër sëriñ bi kenn ku ne xam na ne demoon ak Cheikh Modou Fadal moom la suñuy kilifa tàmm tànn defloo ñu bis boobu ca le 26 ñu di ko yëgal mboolem afaat yi kër sëriñ yëpp tàmbalee ci Cheikh Modou Moustapha ba ba ci ko soxna faati ba ci ko soxna May góor ak jigéen ñu ngi ko yëgal ñëpp waaye di ko yëgal seex si yëpp fu ab seex man nekk ci biir dëkk bi wala ci biti dëkk bi. ak fu ngeen mën fu mën a nekk rek seeti sëriñ si seex boobee ñu ngi leen ko jégal góor ak jigéen mag ak ndaw di ci soññ ñëpp di ci soññ axambaati Cheikh Modou Fadel yëpp ñu góor góorgóorlu ci waajal ko ndax ñu mën a teertu gan ñi ñu egsi ci jàmm salaam ñu teral leen ngir jëmmi yàlla ak yonent bi Cheikh Modou Fadel mi nga xam te xaritu ñëpp la ni ko sëriñ Cheikh sëriñ na joo waxe lépp waxe léegi rek lépp ñëpp ku ñëw jël sa wàll ku ñëwati sa wàll de mi ngi fi di toog di la xaar ñu ngi jégalu ñëpp ci kàddu yi nag fàttali fàttaliwaat rek ci màggal gi màggal sëñ Fallou moom bu ñëwee kenn ku ne na jàpp ne yëfi sëñ fi bopp la waaye rawatina nag ñun waa Ndakaaru ndax dañ ci am ñaari mbir màggal gi dañ koo santaane mu war ñëpp. ñun ñu tam ñu jox ñu seen digal loo xam ne bisu màggal gi lañ ñu ko jox feeg bisu màggal gi ñëwut ndigal la beesu ci ñun kon li fi waxaa rek fàttali ndigal lañ ñu joxoon ne bu màggal gi jotatee nañ àndandoo def combat ñëw fekk sëriñ bi fii kon ñu ngi koy fàttali bépp daayira ak képp ku ñu nekk ci Ndakaaru ndigal la ñu sëriñ bi joxoon màggal yi passé defuñu ko woon waaye màggal gii dañoo bëgg del comme joxaat nañ ci ndigal ñu defaat ko nañ ko doon defee na mbooloo mi yëpp daje ca Padoa ñu jël ay oto indil sëñ bi mbooloo mi loolu lañ ko sëñ bi sant woon ñu ngi soññaat tam président daayira yëpp nañ ko daan defee teel a indi seen kees yi daayira saa ñëwee ca barab ba daañu fa fekk ñu ko daan jël ñu daan leen fa fekk muy fàlluka ak ak Mor Diop ak Serigne Modou Ngom nga ba ngaa jël oto itam ba ba gannaaw suba la bis bi képp ku a jël oto ñëwee danañ la jëlal oto yaag sa daayira nga ñëw ànd ak mbooloo mi ñëw ñu ngi ci soññu ñëpp di ko di ko yeesalaat dañ ko doon yeesal di ñaan itam autorité yi nga xam ne ñoo nekk ci yoon wi ñu dimbale nu ci convoi bi jógee Ndakaaru di ñëw fii jàpp ne yoon wi bañ mën a ñëw nañ ko bëggee di yeesalaat di fàttaliwaat itam ñi ñi nga xam ne ñi ñu yor frontières yi muy douane ak police nañ ko daan defee di ko jàppandale ni ci màggal gi daaw ji yëg am na jafe-jafe yoo xaw a am ci Rosso Mauritanie ba am na ñoo xam ne ñi sax seen bagage yi ñu doon indi dañ ko faa bàyyi ba biñ dëppee lañ woo directeur directeur wax ñu delloo leen ko kon nag ren ñu koy fàttaliwaat euh, directeur de douane ak commissaire bi nga xam ne bii moo nekk ci commissariat bu nekk ci Rosso nañ jàppale taalu bi ci ñëw gi ñëw bu ko defee ñu mën a teel a ñëw mën a teel a delluwaat loolu daal la ci doon fàttali ñu ngi soññu ñëpp ote baa ngi noonu ñooy fàttali bokk yi nga xam ne ñooy màggal si di ci barabub Cheikh Mamadou Fadel bi ci dañ faa teg ab daayira boo xam ne ñoom lañ fay liggéeyloo muy waa daayira Muxaddamatul Xidma ñi ngi soññ ñëpp ci nekkin wi ak colin wi ak doxin wi ca biir jumaa ja te xam ne foofee la Serigne Touba tëdd fa la Cheikh Mahamadul Fadal tëdd kon kuy caaxaan waroo jëm foofa mbokk yi bis baa noonu sëriñ alaaji wax na ko ñun ñi yàlla taw feexee la nag ñu am loo xam ne kuy ñëw ci màggal gi moom nga bëgg waaye ñun ñoo ko am bu garanté mooy ñun ñun tudde sëñ Fallou sa ndey dem àjjana sa baay dem àjjana nga dem àjjana te ko ñun lañ ko defal kon nag fu am Fallou mën a nekk am sëñ Fallou mën a ne na wàcc ñëw bis baa ngi noonu képp koo xam ne xat-xati jamono jàpp na la wala njàqare jàpp la ñëwal ci bisub Cheikh Mahamadul Fadal te fas ci li nga bëgg soo àndee xol bu sedd xol bu sell ak yéene ju sell ñëw ci bis bi lépp loo ci dagaan da am ñoo ngi ñaan yàlla mu fayal ñu mag ñu jiitu woon tàmbalee ko Cheikh Mahamadul Fadal teg ci Cheikh Mahamadou Moustapha Falilou waaye nag njabootu sëñ Fallou ba agsi ci sëriñ Mamor mii mujj a wàcc ab liggéey yal ci daraje alxuraan fay ko ci barke baayam ba ñuy bi nee na mi ngi fàttali màggaluk alaaji Baara moom bu ñu nee suba la màggaluk lay doon war doon kon le 27 cérémonie bi le premier lay doon incha allahu rabbi di amee fii ci kër bi bu fukki waxtu jotee ñu ngi ciy séentu ñëpp wasalaamaaleykum wa rahmatullahi وننجو به دنيا وأخرى من الكرب